mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi wuute gi ci tànn gi Sud FM seen Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñu diwaan benn waxtu moo jot bisimila ci xibaar Euh, li ci gën a fës daal na ci rek bokk waa sami municipal yi daal di jël lépp luy rek euh, matuwaay gannaaw kaa bu njëkk bu korona bi euh, képp kuy patient itam lu aju ci wàllu nag woowe rawatina bàyyi ko ci ab tukki daanaka salle ba ñuy wax isolement lañ lay daal di yóbbu ñu daal di def prélèvement yi yeneen yi jumtuwaay yi itam daal nañ ko fay rek teg nañ ci dikki ci ndorteelu xibaar yi épidémie googu daanaka rek di daamay jeexital yu bon ci wàllu koom-koom gi àdduna wërngal euh, këpp boo mooyul sax lu raw la xewoon 2008 euh, mën na cee nag am loolu may sababu xam-xam mag ci wàllu nag économie moo daal di def jàngat bi ni mel dinañ ciy déglu euh, wàllu ministère bi ak communication ba mu cay daal di nag def waroon na gën a mën rek jàppandal bu fekkee ne nag wàllu expert ak ñeneen ñi ci nekk spécialiste ci médecine dañu daal di nag gën a fësal xar kanamu ñuy def wàllu nag politique loolu itam dinañ ci daal di dëkk ci njàngat ba ca daal di am ak blocage lu loi bi wàll nag criminaliser li jëm ci wàllu euh, sàkku jigéen yi di xeetu nag viol ak pédophilie euh, bés boobu def nañ ci ay bésub weccante xalaat ak défi ca war euh, bëgg nañu lépp loo xam ne nag yees na ci ñu daal di koy nag fësal ak loi boobu naka lañ koy daal di doxale dinañ ci toftal yeneen i xibaar laataa ñuy dikk nag ci wàllu revue de presse bi ak Adja sa Iliman lay wan lay doon jaajëfal Alioune Badara Socé moo ne ci sottandikukaay bi faram-fànce Guinness gis lay doon ci kàddu gi ñu daal di koy nag door rek premier cas bu coronavirus bi SAMU municipal ñi daal di jël matuwaay yëpp lu aju ci wàllu nag patient yi soog di yegg si rawatina bàyyi ko euh, bitim euh, réew dañuy fexe rek ñu daal di leen rek yóbbu ca saal ba ñuy wax euh, isolement foofu la ñu nak nag prélèvement yi ak pàcc yu jëkk yi masque yeeg yeneen ci waatu xeetu xeetu liquide yi wàllu hydroalcoolique yi ñuy daal di jëfandikoo yëpp daal matale lañ ko rawatina ci personnel médical bi ngir rek lépp daal di gàttan moytandu boobule xeetu feebar daal di koy daan dañ ciy teewlu docteur Sidi Massar Gueye mooy médecin chef bu SAMU municipal ñu déglu ko Fatoumata Diallo. waaw xam nga commencement bi rek la sax loolu moo yéeme commencement rek àddina bi euh, daal di euh, sëngëm lu ñëpp euh, réew yi yëpp économie yëpp tëddandoo benn yoon. mais li ci gën a doy waar mooy ki nga xam ne daanaka mooy bopp bi euh, su doon saxaar tey mooy bopp bi mooy Chine ndax li muy consommé ci matière première boo ci mën di jël nag ba ci pétrole li ñuy wax pays émergent <clears throat> moom moo ci ëppale euh, ba Chine boobu dafa taxawal ay ay ay ay ay usine am loolu immédiatement dafay affecté àddina bi yëpp ba nga xam ne tey euh, bi feebar bi duggee États-Unis dugg Europe dañoo gis ne kon Euh, dañuy dugg ci benn euh, phase boo xam ni daal euh, récession économique xam naa ne genre perte daal perte ndax dégg naa sax ci information ci Angleterre compagnie aérienne bu fayit waaw tëj ay buntam ne moom amatul sax client yu boobu yooyu kon nag pour wax ne at ah, ci commencement bi lañ commencé def évaluation bi ah su fekkente ne nag yàlla dimbali nañu feebar bi yem fii xëy na mu tane mais fekkente ne dafa continuer ay weer ci kanam dana raw euh, li ñu daloon crise bi fi amoon ci deux mille huit muy crise mondiale boo xam ne nii daanaka saafaraam ay jafe daal ay ati ati at lañ koy saafara. daal euh, saafara ko daal ci tàng tàng bi daal mooy saafara bi. waaw su fekkente ne fekkente ne mën nañ téye feebar bi nit ñi dellu ci seen yitte. usines yi di doxal avions yi di naawaat touristes yi di dem nit ñi eh, ñi ragaloon dem marché dellu marché mais fekkente ne loolu lépp amul eh, dem marché sax da ko ragal daanaka koo yóbbante sax da lay të ah dafa continuer ni eh, rëppeelu bu méttee métti la koom bi àdduna bi yëpp nag la la koom bi di di te loolu jigul kenn daal maanaam jigul kenn musiba naaru laay la rek daal balaa bu mag la ñu daal di ñëw nag ci wàllu communication bi ministère santé di daal nag def ci ni mu yore crise coronavirus boobu euh, lu gën waroon mën a gën a jàppandal la bu fekkonte ne nag ñi yore kàddu expert lañu wala ay nit ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na lool ci wàllu euh, médecine lalu expert wàllu communication de alkali benn Mohamed Diouf moo ko daal di nag wax ne na caractéru nit ki nga xam ne woyu politique la nekk ministre de la santé nekk na blocage yi anam yi xibaar yi di daal nag gis ne bu ñu jëloon ku ci nekk jox ko wàllam mën naa am yëf yi tane ñu teewlu njàngatam ak Marie Rosalie Ndiaye. yoon yi ñuy jël defe naa ne yoon yooyu ñu dul yoon yi ci gën a baax euh, li gënoon euh, jekk ci loolu mooy euh, quand même balaa coronavirus bi di ñëw. am na feebar ay jàngooro yoo xamee ku jiitu woon bu benn Ebola bi nga xamee ne quand même si woon na fi si wuloon Sénégal mais am na ku ci jotoon a ñëw am ko ci jamono boobu nag ñu ko jiitu woon di euh, Eva Marie Coll Seck moom docteur la ñëpp xam ne ñu am docteur tam xam-xam la ministre bi xëy na tam euh, fi nga xamee ne niw na ci doole dafa dul docteur moom politicien la. dem na euh, maanaam waxtaan ak ñi nga xamee ne ñoom ñoo mba màggalu Porokhane bi. c'est vrai que li mu demoon wuti jotu ko parce que euh, mënuma wax ne dañ ko gàntu mais daal euh, ñu li nga xamee ne moom la soxla woon foofu euh, li waral loolu man dama defe ne daal jëmmam moo moo waral loolu su fekkee ne woon xëy na président de la république bi moo demoon wala ñu jiital wala ministre bi àndoon ak ñoo xam ne ay docteur nañu docteur yi mun a wax parce que moom du docteur donc forcément euh, su àndoon ak ay docteur ci kuréel boo xam ne ñu tëral ñu tabaxoon kuréel boo xam ne dinañ dem mun a dem waxtaan ak guide religieux yi xëy na euh, dinañu am euh, lu ëpp li fa ministre bi jëlee. ñoo daal di nag fàttali ne mooy doon suñu nag gan ci wàllu xabaar yi euh, looloo ñu yóbbu nag ci loi bi nga xam ne dafay daal nag criminaliser li jëm ci wàllu viol ak xale yu ndaw yi ñuy daal di sàkku euh, bésu xalaat lañ ci daal di nag amal ngir ya ca yees waaye itam défi ya leen ciy xaar ñoom acteurs yi la ñu bëgg nag mooy lépp lu ca lañ ci wala lu ñu leen dem rek ñu daal di koy dindi bu ko defee ñu mën appliquer euh, dogal boobu ci lu dul am benn jafe-jafe Babacar Samb. di ay magistrat police scientifique ak itam société civile daal di daje ngir amal ay ceytu jëmale ko ci loi 2020-05 bu 10 janvier 2020 nga xamante ni dañ ci daal di criminaliser lii di viol ak itam pédophilie fii ci réewum Sénégal ana lan moo wundu googule loi yan jafe-jafe lañ ci daal di nemmeeku lépp ñu fas yéene cee indi waxtaan ak ceytu ngir procès gu amul benn xaj ak seen googule loi bu yees daanaka nag ay coppite dana ko daal di indil ci doxalin bi ci wàllum justice waaye lépp ñu war koo def ci lu tegu ci xam-xam bu sukkandikoo euh, ci premier président bu cour d'appel bu Dakar groupe Sénégal war a jàppale justice bi gën koo dooleel jox ko ay jumtuwaay ngir liggéeyam gën a mën a mucc ayib bu ñu sukkandikoo ba léegi ci Demba Kandji googu leen loi dinañ ko daal di appliquer te du mës a am xajax seen te lenn duñ ko si seet waaye ngir mën koo appliquer euh, foog officier police judiciaire ñu daal di koy gën a dooleel yokk itam ay jumtuwaayam waaye itam lu jëm si wàllum personnel bi ñu daal di koy gën a renforcer ngir mu mën a xaatim ay PV yi nga xamante ni dana gën a alimenter lii di dossier yu jëm ci wàllum viol ak itam pédophilie ngir application bu mucc ayib fokk itam yenn ci ay jafe-jafe ñu xool na lañ koy saafara ay jafe-jafe yu ci mel ni dispositif de prélèvement des indices yi nga xamante ni police mu ngi koy faral di def te li ni mel di faral di tagg témbe yenn ci ay itam victime bi di ko faral di effacé dénonciation tardive itam ñu daal di kas yi faral di nemmeeku buñ sukkandikoo ci directeur des affaires criminelles et des grâces Mandiaye Niang doon ki fa teewal jëwriñ ju ñu dénk wàllum justice si ay jafe-jafe itam bokk na ci yenn ci ay révélation jëm ci wàllum ADN nga xamante ni daanaka doxalin bi des na fii ci réewum Sénégal ba tax na njiital police scientifique Babacar Simal di sàkku ci nguur gi modernisation ak itam autonomisation laboratoire bu police scientifique ñoo daal di koy jaajëfal Babacar Samb ñëw nag ci circulation bu métti lool ca Sali Carrefour euh, ci euh, buntuk rek ville bu euh, Mbour foofee nag am na rek saa su ne ay embouteillage mu nekk nag ab situation bu doy waar bi tax nag yu bari ci accident di faral di fa daal di nag am way jëfandiku yi daal di nag àddu nag jëme ci circulation boobu ak na muy dexe ca Sali Carrefour Babacar Sow. ci Carrefour bu Saly booy dugg ci dëkkub Mbour di loo xam ne lii ñàkk kaaraange gu tara tara la ñu fi nemmeeku ci bërëb bi nga xamee ni ay accident itam daañu ko fi nemmeeku fii ci Carrefour Saly taxi clando yi auto particulier yi nga xamee ni amuñu droit def li nga xamee ni moo di transport urbain watiir yi ak jakarta yi lu leen neex la ñu fi def te duñu respecté code de la route Fallou ak Lamine Mbow ay commerçant la yu nekk ci croisement Saly croisement Saly Carrefour la boo xamante ni dem beeg dikk bi bari na fi euh, lool lool lool lool ba tax na daal euh, sécurité bi moom euh, buñ ci manœuvre surtout. dinañ fi noté cas d' accident la te yi dañuy dem ak euh, dik insécurité bon je peux dire particulier yi ñuy def transport irrégulier ñooy indi souvent kii parce que transport euh, suñ koy wax tey jii yi xamante ni dafa ñëw gaare orom nii di dem kut ko kut moom li may gis mooy yàpp client yi rek pour dem waaw jëkkante bi affaire yooyu noonu du ñoom seen xel sax ñu ngi jéem a traversé bi affaire yooyu duñu respecté circulation bien entendu oto dina fi nekk route day causer mooy indi ay télescopage yu bëri ay accident tamit oto génnee nit nar traversé mu am embrouillement entre ñoom kooku dina paniquer panique est risque d' di kàddu yi ñuy yëkkati di ko jooyal kilifa yi ngànk dogal ci mbuur ngir ñu saafara circulation bi fi nga xamee ni moo di ci Carrefour Saly Babacar Sow doon ca jokk kiin ci Petite Côte Mbour pour Sud FM Babacar ñu daal di dikk nag ci yenn ci ay quartier fii ci Ndakaaru nemmeeku nañu ne dañuy yar euh, élevage yu daal nag lañ koy daal di nag euh, def euh, élevage yu nag lu aju ci jur yu mag yooyule le daanaka loi bi nangu ko lu mooy mu nekk nag fora lu ko mooy décret quatre-vingt ak deux cent soixante-quinze bu dix-huit mars mille neuf cent quatre-vingt daf koy daal di rek ay sàmm boobu ngay daal di def ci bétail yu mag yi dafa war am fi ko daal nag yemale mooy dëkku euh, kaw yi bu ñu sukkandikoo ci directeur bu ñu dénk wàllu élevage moom daaw sow euh, nee na nag fa ñu daal di sàmmonteeg euh, norme yooyu ngir rek man respecter ak ak yelleefu dëkkandoo yi ak ñeneen sociétal yi. mbir yi melatul nu mu meloon yarub nag yematul dong ci foraay yi mu nekk mbir moo xamante ni ñu ngi koy tàmbali di nemmeeku ci yenn ci ay quartier ci ndakaaru dem nañ sax bay takk ñett wala ñeent ci ay nag ci suufu ab garab lu sorewul passage scooter jege lool trottoir bi ak it bi lu ko dalee Grand Yoff ba Médina daanaka gis-gis bi benn la muy mbir bu yees boo xamante ni ñaaw na bu ñu sukkandikoo ci Bamba Fall di maire bu Médina. loolu moom foog ñu trouver ci des moyens parce que du waxu fii sax mais il faut nga leeral ko pour ñun ñi xam ne waxtaan naa ceeg major parce que dañ commencé gis ay nag yu ñuy yar ci mbedd yi waxatuma xar léegi nag la ñuy yar ci mbedd mi nag moom c'est inadmissible loolu boo xam ni dañuy dimbali ñu régler problème boobu définitivement ma ko mbaaru xar bu ñu xoolee text yi wundu wàllum élevage ak it yi wundu occupation bu espace public bi yarub nag ci kër yi nekkul lu ñu nangu bu ñu sukkandikoo ci Dame Sow di directeur bu élevage. suñ cosaan mooy nit ñi dañuy am ay jur ci seeni kër. mu nekk ay xar ba dañuy toléré loolu mais nag euh, noonu tamit loolu la laalee ñi nga xam ne ni dañu am seen jur di ko def ci trottoir c'est le même principe ñi nga xam ne ñu ngi koy def parce que dañ ko dégg fan yi dañ leen di ñaan ñu bàyyi ko bëgg a def sa élevage surtout ay gros bétail nga dem def ko ci zone euh, rurale yi. ci Dame Sow boobee façon di yarub nag ci kër yi nit ñi bëgg a tàmm léegi dañ siy teg ay daan nañu koy defee ci mala yi nga xamante ni dañuy wër ci mbedd yi te décret 80 275 bu 1990 lal ko. li nga xam ne nii moom lañ leen di daan mooy nañ fa jógee léegi nag li nga xam ne nii moom tamit dañ ko tere te mu am ay daan yoo xam ne mooy jur goo xam ne nii day wër di taxawaalu foofu am na décret boo xam ne par exemple décret 86 275 dafa ni jur goo xam ne nii dañ ko fekk muy taxawaalu mu nekk ci àll bi wala mu nekk ci taax yi dañ ko war a jàpp yóbbu ko fourrière te am na daan yu bëri yu te maire yi xam nañu ko. directeur bu élevage mu ngi bàyyiloo xel yooyee éleveur ngir ñu wàcc woo ak lépp lu jëm xamante ni teg nañ ko ngir dëkkandoo gu baax. sooy def dara ci sa kër waroo lor sa moroom. dafa am lu ñuy wax norme de bon voisinage mooy loo xam ne nii dëkkandoo li ñuy wax jàmm si gën te jàmm du affaire xuloo xeex rek lépp loo xam ni dafay impacté ci sa dal dalu dëkkandoo. ci confort am ku nekk da ko war a moytu. Euh, Socé kon ñu daal di dikk nag ci suñu ganu bés bi mu ngi ci alkali Ben Mohamed euh, Diouf moom expert la ci wàllu nag communication anam bi ñuy gérer nag crise bi aju ci wàllu coronavirus bi lay daal di jàngat waxtaanam ak euh, Marie Rosalie Ndiaye. alkali Ben Mohamed Diouf gis nañ ne ba jàngoroy coronavirus accès fii ci Sénégal ba tey daal di nañu tëral benn plan de communication bu ministère de la santé est-ce que ni ñu koy jëfee noonu la. ci gàttal li ma mën a wax ci wu crise wu jàngoro bi ñuy tuddee coronavirus fii ak ministre de la santé niñ ko doxalee daal euh, tëral nañu dara mais tam yoon yi ñuy jël defe naa ne yoon yooyu ñoo dul yoon yi ci gën a baax euh, li gënoon euh, jekk ci loolu mooy quand même balaa coronavirus bi di ñëw am na feebar ay jàngoro yoo xam yu ko jiitu woon bu mel Ebola bi nga xam ne quand si woon na fi si wul woon Sénégal mais am na ku ci jotoon a ñëw am ko ci jamono boobu nag ñu ko jiitu woon di euh, Eva Marie Coll Seck moom docteur la ñëpp xam ne ñu am docteur tam xam-xam la ministre bi xëy na tam euh, fi nga xamee ne niw na ci doole dafa dul docteur moom politicien la loolu moo tax tam affaire yi xaw a tey xel tuuti. gis nañu ne gannaaw ba ministre bi wootee ngir bépp manifestation rawatina religieuse bu nar a euh, dajale ay mbooloo ñu mën ko dàkk ba jàngoro ji euh, génn ci réew mi euh, dafa mel ni woote googu kenn déggu ko ci sa gis-gis lan moo ko waral. waaw ministre bi dem na maanaam waxtaan ak. ñi nga xamee ne ñoom ñoo ëmb màggalu poroxaan bi c'est vrai que li mu demoon wuti jotu ko parce que euh, mënuma wax ne dañ ko gantu mais daal euh, farataaluñu li nga xame ne moom la soxla woon foofu euh, li waral loolu man dama defe ne daal jëmmam moo moo waral loolu su fekkee ne woon xëy na président de la république bi moo demoon wala ñu jiital wala ministre bi àndoon ak ñoo xam ne ay docteur nañu docteur yi mun a wax parce que moom du docteur donc forcément euh, su àndoon ak ay docteur ci kuréel boo xam ne ñu tëral ñu tabaxoon kuréel boo xam ne di dem mun a dem waxtaan ak guide religieux yi xëy na euh, dinañu am euh, lu ëpp li fa ministre bi jëlee puisque ministre bi maanaam jëlee fa dara loolu daal laa mënoon a wax ci gàttal parce que li tax may wax loolu Euh, guide religieux yi ci seen bopp ñoom suñu feebaree ci docteur nañuy dem du ñu dem ci ministre bi pour mu faj leen donc loolu moo tax ma ne xañ na ne su fekkee ne woon moom ab docteur la woon xañ na kàddoom kàddu yi muy wax waxtaanee ko foofu dina nekk kàddu yoo xamee ne euh, maanaam guide religieux yi xañ na dinañ ko gën a farataal parce que quand même mi nga xamee ne euh, fa la lislaam soxee ko pourtant màkk dàq nañu affaire umra umra amatul donc aj bi sax dama xamagul tollooguñ fa mais daal li wóor ba wóor mooy umra bi nii màkk tëj nañ ko gàttal nañ ko. Ah, bu dee am na lu ñu mën a jubanti ci wàllu plan de communication de crise bi ñu taxawal ci ministère de la santé fan nañ ko war a wekk. pour dablu li nga xamee ne maanaam euh, mooy euh, texe texe yi nga xamee ne moo am man ci sama gis-gis bu gàtt euh, am na kilifa. comme ki ko doon jiite di premier ministre amatul léegi Sénégal président de la république moo am euh, donc defe naa ne président bi moom moo war a euh, jiite loo xamee ne xëñ na kuréel boo xamee dina ko woote foofu ci pale bi Euh, dajale ñëpp ñi nga xamee ne ay docteur nañu ñiy faj jàngoro yi nga xamee ne ñoom seen xam-xam màcc na ci maanaam genre jàngoro yi parce que am na ñoo xamee ne ñu ngi fii ci Sénégal xam nañu professeur Mboup bi nga xamee ne xarañ na ci lool puisque moom ci affaire u sida moom am na loo xamee ne euh, jotoon ci àdduna bi yëpp ràññee woon nañ ko ci puisque moom moo jotoon na gis daal li nga xamee ne jàngoro bi la ci boppam donc su defee loolu maanaam ñu woowee ko task force wala comité kuréel boobu daal nga xamee ne daal ñëpp ay euh, docteurs yeex ñooñu ñi nga xamee ne tam même euh, ci communication médical tam euh, xarañ nañ ci ñu mun ci toog gëstu ci liggéey ci ba nga xamee ne après tam dinañu mën a di daje bés bu nekk saa su nekk ci ministère ba pour xam xamloo euh, population Sénégal yi li ñu war a def ak nu ñu ko war a defee il est vrai que am na loo xam ne def nañ ko ba pare mais li ma defee mooy euh, ministre bi ci wàllu boppam daal moom daal moo am moo war am ay problème ci domaine boobu moo tax itam ni muy doxalee moom kenn la mooy doxal affaire am loolu moo tax daal am na li des ba léegi.